asalaamaaleykum xarit yi asalaamaaleykum soppe yi waaye asalaamaaleykum rawatina yéen samay taalibe maa ngi leen di nuyu kenn ku sa nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara si weeru koor yi di leen nangul seen ziyaara waaye di beesal sama kóllëre si yéen si guddi gi ñu génn muy guddig laylatul xadri di ñaan yàlla yàlla na tombeeg muy guddig laylatul xadri di leen ci ziyaara di leen ci ndokkeel di leen ci beesal sama kóllëre sama diggante ak di leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla sotti si ummatu muhammad bi jàmm yal na yàlla sotti si ummatu muhammad bi déggoo yal na yàlla sotti si ummatu muhammad bi njub si barkeb Seyd Ahmad jan Sërif waaye yal na yàlla dooleel lislaam bi bu yàlla dooleelee lislaam bi ba pare yal na yàlla gën a dooleel tarixa bi muy tarixa Seyd Ahmad Tijaan Sërif bi di leen bu baax di leen sant di leen gërëm di leen bàyyi xel di jéggalu si gëjë kàddu gi ngeen gëj a dégg waaye nag na ma leen ko daan waxee rek xol bi moom saa su ne bu ngeen ko ubbee yéen taalibe yéen si nekk xawaa tey nag ma bëgg waxtaan ak yéen si benn wax boo xam ne maa ngi sàkku képp koo xam ne jot na vidéo bi nga déglu ko ak xel te bañ ko déglu ak xol ah, di fàttali sama bopp di leen fàttali gannaaw bu ma leen ñaanalee ñaanal suñ bopp ñaanal réew mi mbas mi nekk si àdduna bi yàlla jëlee ko fi di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla jéggal ba jëlee fi mbas mi ñu mën a continuer suñ jaamu yàlla niñ ko bëggee ah di waxtaan ak yéen si benn anam ngeen bàyyi si xel bu baax a baax yéen taalibe yi bu mën a taalibe yi nag ñëpp këru diine yi nag laay waxal tey tey waxuma ak samay taalibe kese ah kay këru diina yëpp samay taalibe lañ waaye maa ngi wax ak këru diina yëpp gannaaw bu ma waxee ak sëriñ si dinaa wax ak taalibe yi waaye maa ngi jiital ci sëriñ si boot këru diine yi mooy xalifa généraux yi mooy yéen ñu dend ak xalifa généraux yi nañ bàyyi xel benn mbir mi ngi waaj am na ko ñëpp bàyyi xel maa ngi ndokkeel Ahmed Khalifa Niass démb débat bu mu def si TFM te mu réussir ko dinaa leen wax li tax mu réussir ko ah débat bi defuñ ko woon ngir Ahmed Khalifa Niass ñëw waxtaan ak nit ñi ci diine déedéet dañ ko defoon ngir lan ngir féewale këri diine yi parce que fi ne nii am na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg mooy ñu féewale këri diine yi liñ bëgg def ñu def ko moo tax yéen sëriñ ci foog ngeen bàyyi si xel parce que li tax ma ne Ahmed Khalifa Niass réussir na ko démb plateau bi mu am TFM beneen këru diine buñ ko defoon <coughs> yaakaar naa boo moytu du réussir ci li ma foog parce que invité nañ fi këru diine bu ne. ba ba ngay ñëw da ngaa ànd ak sa woykat indi ko benn def nañ li nekk Touba moo nekk seen li nekk seen moo nekk Tivaouane parce que kenn ku ne mën naa wëyal sa morom waaye lépp ñi teg ko la ci yoon waaye buñ commencé lii ñëw ba ci catu fin bi ñi bëgg soppali beneen doxalin bu bu dabar woon rek mën naa taal këru diine yi tey bu ko neexool mu ne samay woykat ñoo may wëyal bu ko neexoon mu ne samay woykat woykat yi tagg sama ah, woy sama woyu maam yi ñooy toog si si woy te boobaa tamit dafa am luy xew rek kon nag yéen sëriñ si nangeen si bàyyi xel bu baax bu ëllëgee keneen comme kuñ ko mën di def yuboo nga doxalee ni mu doxalee mooy kër diine yëpp benn dañ parce que ñu ñëpp kenn lañ jëm mooy yàlla maam El Hadj Abdoulaye Niass maam Khalifa Niass maam Cheikh Ahmad Bamba maam El Hadj Malick Euh, waa Laayeen yi Njaasaan Medina Gunaas daaka ji ñëpp kenn lañ tagg mu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag na ngeen bàyyi xel bu baax ngeen waxtaan ak seen jegeñaale yi waxtaan ak seen taalibe yi buñ moytuwul nag kàmbu gi ñu gasal këru diine yi dinañ ci sorox mooy fexe féewale këru diine yi ñi ñiy di xasante di saagante boobaa nag ñoon ñi bëgg def lu ñuy def moo man du ma nëbbu benn wax mooy te télé bii ñuy wax te TFM nag buñ ko teelu te artu bu ëllëgee buy kër diine yi di toj foofu lay jaaree man duma ragal lu may wax parce que dëgg ma man duma ma ko raay raayal bëggumaa doon naa fet moo tax yéen sëriñ si maa ngi leen di artu na ngeen bàyyi xel bu baax yéen ñuy toog ci palato yi di wax ak nag taalibe yi yéen taalibe yi dinaa wax ak yéen taalibe maam El Hadj Abdoulaye Niass taalibe maam Khalifa Niass bu gëmee maam xalifa te gëmul ma eh, sëñ Serigne Touba sa taalibe des na taalibe Serigne Touba bu gëmee Serigne Touba te gëmul maam Khalifa sa taalibe des na taalibe maam El Hadj maam si bu gëmee maam El Hadj Malick te gëmul maam Khalifa sa taalibe des na kon yéen ñëpp ñëpp ay jullit lañ kon nag jullit li ko war mooy képp ku jëm si yàlla nga gëm ko kon nag maa ngi leen di dénk ngeen la ni ngeen gëmee seen sëriñ na ngeen ko gëmee sëriñu keneen. yëf yi du saagante yëf yi du xasante waxoon naa leen ko kerek mbir mi lii leer du fii pencam yàlla la lii leer pencam yàlla la maa ngi sàkku si yéen taalibe yi na ngeen ànd ak dal na ngeen ànd ak njub na ngeen ànd ak ngëm na ngeen ànd ak bëgg yàlla bëgg yonent bëgg na ngeen ànd ak yar xam nga lan moo lan mooy rawante bi mooy waxtu julli jot nga dem julli ci waxtu wérdo jot nga dem wérdo ji waxtu wax wax ju di di def lu baax loolu mu la xamee kan mooy taalibe waaye saagante yeeg xasante si internet yeeg fan yi gis ngeen bari na lool parce que li tax ma ne na ngeen bàyyi xel awaa fan yi invité nañ benn waay ñi koy wax xaw ma gànna mes rek xaw ma ah awaa bañ ko invité liñ njëkk a def am na benn video boo xam ne quatre-vingt-dix-huit la ko defoon di si wax Seexu Tijaan wax juñ tegginewut waaye nag nit bu yaruwut moom mën ta wax lu baax man duma artu si ay mbiram naa ko bàyyi ak Seexu Tijaan lañ xoolal ñi bàyyi ba 2020 bis buñ ko waree invité fexe nañ ba lokkati vidéo boobu lancé ko si internet bi laata muy toog ci plateau bi pour lan pour la taalibe Seexu Tijaan yi fépp ñu commencé réussir ñu ne léegi fiñ koy tënk nag nañ ko tënk si Ahmed Khalifa Niass bu buñ koy wax ma invité nañ boole ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ak ñeen këri di këri diine ñooñu ñu teg leen ci plateau bi pour ñu woy seen sëriñ pour moom mu mën a mer mën a attaqué kër sëriñ boobu ndax ñooñu tamit reporté wu ñu mën a fenqaloo moo tax foog ngeen bàyyi xel yéen taalibe yi na bàyyi xel bu baax a baax dëgg sarax biñ leen nasal na ngeen si bàyyi xel man nag duma raay raayal wax moo tax na ngeen góor góorlu na ngeen góorgóorlu bu baax na ngeen yeewu na ngeen xam fi ngeen teg seen tànk këru diine yi du ñu ay noon këru diine yi du ñu ay noon ni ma la ko mën a misaalee mooy ñaari ñaari doom yu bokk yaay waaye ngeen la ay seex kii mën naa jël ween bi kii jël ween bi waaye yow nga ne benn ween bi rek lañuy nàmp moo am meew mais beneen ween bi kenn du ko laal amul meew amul fen amul fen maa ngi leen di maa ngi leen di defal nag yéen taalibe ñaseen yi taalibe maam xalifa yi ñu bëri déemu mer nañ waaye bu leen mer gis nga maam xalifa billaahi wallahi tallaahi mooy ngëñal jullit ni ngeen ko bëggee ni xamee ko ko àddina bii duñ ko ko xamee parce que bokkul ak ñeneen ñi yoon bokkuñu yoon kenn ku ne dafa tànn yoon maam xalifa yoon wi mu tànn moo yoonu kat miya duñ ko xam mënuñ ko xam si àddina bi yowmal xiyaam rek lañ koy xamee parce que moom moo sàkk woon loolu tey boo toogoon ci plateau bëggu kaa leeral maam Khalifa dana la dana la mës-mësal ba doo mën a doo xam sax li nga jàngoon lan la kon loolu yëpp nag foog ngeen xam seen sëriñ mooy kan na ngeen xam kan mooy maam Khalifa Niass xam ko nag mooy topp ko topp ko mooy digle lu baax lim digle ngeen topp ko tere lu bon lim tere ngeen bakku ni ngeen ko bëggee ngeen bëggalee ko ko ay nawleem mooy maam Serigne Touba mooy maam El Hadj Malick mooy Cheikh Omar Foutiyou mooy waxayru waxayru waxayru ba damet ba mu jeex loolu laa leen di dénk yéen taalibe xalifa ñasi ni ngeen bëggee seen sëriñ muy maam xalifa na ngeen ko bëggee sëriñ Touba ni ngeen bëggee maam xalifa na ngeen ko bëggee maam alaaji Malick si ku xas seen sëriñ seen yoon nekku si képp ku wax seen sëriñ lu bon bàyyi leen kook yàlla képp ku ŋàññi seen sëriñ bàyyi leen kook yàlla képp ku gaaral seen sëriñ bàyyi leen kook yàlla gëm leen li ngeen gëm ngeen gumba tax loolu laa leen di ñaan yii ñuy yii ñuy tànt yëpp duñ ko réussir incha allah duñ ko réussir maa ngi nag laaye biir sama mbokk taalibe muy taalibe cheikh te yaakaar naa ne taalibe cheikh la mooy Pape Hann démb pièce biñ def moom da see damaa gis ne kerek bañ commencé carte générale ba léegi kuñ invité moom moom moom ñooy bokk plateau awaa ah li tax dem mu ñu invité Ahmed Khalifa Niass toogu si plateau bi te ni ma gëmee yàlla gëmee ko yonent bi gëmee ko Cheikhu Tidiane laa gëmee na tey maam Alhaji Malick si bu doon dund ñu ne maam Alhaji Abdoulaye Niass mooy ñëw tey dëkk sàngam mu fekk fa maam Alhaji Abdoulaye maam Alhaji Malick Sy lu mu yàkkamti yàkkamti dana toog xaar ko lu mu am ngant ngant dina toog xaar ko kon maa ngi lay wax na nga na nga soppali sa doxalin nit ki nag boo am nga xam di ko wax ci tale yi da nga ko war a jëfee na ko jëfee nit boo am nga xam-xam di ko wax ci télé yi danga ko war a jëfee man gisuma démb benn ngant bu ko teree ñëwul toog ci palaato bi bi ni ma gëmee yàlla laa ko gëmee ne bu doon keneen dana toog ci plateau bi nañ bàyyi par gi nañ bàyyi par parloo gi kenn ku ne am na lu la yàlla may ngel la sa sëriñ li ko yàlla may nanguleel sëriñu keneen li ko yàlla may parce que ñi seen nangul nag ñëpp waaye ngel la nañ nangul maam xalifa li ko yàlla jox li ko yàlla may si yonent bi li ko yàlla may si Seydi Ahmad Tijaan Cherif yàlla moo ko may si maa tayam këru diine bu ne bëggoon nga am ku mel ni maam Khalifa Niass bu ne maam se maam Seex Ahmad bëggoon naa am ku mel ni maam Khalifa maam Alhaji Malick si bëggoon na am ku mel ni maam kalifa waaye ngeen la am nañ ko waaye nag nañ bàyyi parparloo gi nañ bàyyi jéem a dugal féewale këru diine yi amul njëriñ du ñu jurul dara. xam nga lu ñuy jural mbugalal mbugalam àddina mbugalam àllaaxira te bëgguñ kenn yàlla mbugal ko ñun suñ ñaan ak suñ nisar ak suñ bëgg-bëgg yëpp mooy ummatu Muhammad yëpp dugg àjjana wallahi man de bët bu set nii laa koy ñaane yàlla ummatu Muhammad bi na yàlla yow yàlla nga nga dugal ñëpp àjjana waaye am na yoo xam ne jaru ko buñ parce que plateau yi léegi dafa commencé déborder dugal nañ ci loo xam ne bokkuñ dañoo dem ba commencé di ci dugal affaire xaalis te xaalis baaxut xaalis ak jigéen bu ëllëgee yowmal xiyaam safara ña fay dugg yépp xaalis ak jigéen ñoo leen fa dugal léegi xoolal bu ñu invité benn sëriñ ngeen gis taalibe bi commencé joxe naa nangam joxe naa nangam may naa luy loolu te yow am nga mbokk yoo xam ne ñi ngeeg soxla nañ ko mën nga leen a dimbale te dimbale woo leen léegi nag ñu bëgg see dugal affaire xaalis pour nag léegi muy concurrence pour xeeb kii naw kii saaga kii tagg ki loolu baaxut baaxut yéen mbokk julli di nangeen ngeen xoolaat fi ngeen di teg seen tànk diine jii du affaire am am euh, jaay am am xam nga lan la affaire njub yàlla ba koy yonent bi yonent ba koy suñu borom di tagg taggeewu ko si alal taggeewu ko si taar taggeewu ko si yére yu rafet taggeewu ko si maa mën a maye nangam maa mën a def nangam déedéet وانك لعلى خلق عظيم لك واخ جيكوم لا تاغ كون نك نانجيما ديفار سون جيكوي نانين جيما ديفار سين جيكوي نان جيما ديفار سون جيكوي ني نيب موي امه محمد بي ييب لاي واخال غارالوما كين قاسوما كين داما بغ ني نيب ني تيغو سي يونو صراط المستقيم بوبو اللهغي ني باغا غاتال يونتو بي ni baña rusal ruslo yonent bi ñi baña seugal yonent bi parce que yonent bi ay nawlam ay mbokk yonent bi ñoo fa ne waaye ñoo ñëpp yonent bi lañ doon xeexal yonent bi lañ doon fàkkal yoon pour mu ñëw nday mbili gi ñëw kon nag li may wax ji yëpp li may bañ mooy bu ëllëgee ñu su rusloo yonent bi kon nag maa ngi woo sama mbokk jullit ji maa ngi mboo woo sama mbokk jullit ji maa ngi woo waa waa Touba maa ngi woo waa sama mbokk Tiwaawan yi maa ngi woo sama mbokk Njaasaan yi maa ngi woo sama mbokk Laayeen yi maa ngi woo sama mbokk Medina Gunaas maa ngi woo sama mbokk Daaka ji maa ngi woo samay mbokk waa Kër Abbas Sall maa ngi woo samay mbokk waa maa ngi woo maa ngi woo maa ngi woo maa ngi woo mbokk jullit yëpp nañ xoolaat fi ñuy teg seen tànk nañ xool ne ñun ñëpp yonent bi la ñuy liggéeyal ñun ñëpp yonent bi la ñuy liggéey ku fi xas beneen sëriñ xas nga yoonante bi te ku xas yonent bi safara nga jëm gis nga plateau yi ñiñ fi invité sëriñ si ma gis ñi nekk di par parloo si ci si yi na ngeen def attention tele yëpp laay wax nag muy TFM ak muy euh, Sen TV ak muy Walfadjri ak muy RTS ak muy D-Média ak ñëpp laay waxal waaye nag TFM da see gën a fës na ngeen xoolaat li ngeen di wax na ngeen di xoolaat kàddu gi balaa génn war ngeen ko seet seetantal ko bu xasee génn kenn mënu ko téye ngel la maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak jëmmi yonent bi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak seydaax Seydi Ahmad Tijaan Sariif bi nga xam ne moom laa dénk sama àddina ak sama àllaaxira nañ xoolaat nañ xoolaat nit ñi taxawalee réew mi réew mi bu tàkkee ñun ñëpp lay tàkkal bu baaxee ñun ñëpp lay baaxal bu bonee ñu ñëpp lay bonal ngel la nañ bañ a taar réew mi nañuy wax lu baax di def lu baax gis nga xam nga lan mooy ndam sa sëriñ lam nekkee woon nga nekkee ko ñu bari ñu ngi naan gëm naa nangam gëm naa kenn gëm naa kii gëm naa kii te ñoo dàq sàcc ñoo dàq fen ñoo dàq wor ñoo dàq luubal loolu moo fi bari waaye yow sa sëriñ del xool kilifa yu mag yi ku mel ni maam El Hadj Abdoulaye Niass ku mel ni maam kalifa Niass ku mel ni maam Cheikh Ahmad Bamba ku mel ni maam El Hadj si ku mel ni Cheikh Omar Foutiyou ku mel waa Euh, maam limaamu laay kenn daawul lekk lu lewut nit ki ñoon boo leen joxoon addiye sax balañ ko lekk danañ laaj suñ borom ndax addiye ji ñi ma jox ki ma ko jox lew na wala lewut ki fi mu ko jëlee bu lewut ñu delloo ko waaye te yow maa gëm nangam maa gëm nangam te yaa dàq fen yaa dàq wor yaa dàq sàcc kooku gëmoo kenn sa bopp la nga bëgg taalibe iblis nga képp kuy sàcc képp kuy fen képp kuy wor nga diggalanteeg sa morom nga nga dem fel fecc kóllëre ga taalibe iblis nga ak koo mën di doon yàlla nag laa taaxusu sinatun wala nawun yàlla nee na gëmmantuwuma bay nelaw kenn mënul nax yàlla gis nga alal ji ñuy sàcc di ko puugar puugaree naan di dem seen këri sëriñ ci billaahi bu ëllëgee ay mbugalal yowmal xiyaam lañ koy jëlee yàlla kenn du ko nax kenn du ko nax kon nag nañ xoolaat fi ñuy teg suñ tànk nañ xoolaat fi ñuy teg suñ tànk maa ngi nag gën a artu suñuy taalibe parce que man seede yàlla ñu ngi koy nodd samay taalibe laa gën a am accès si taalibe jàmbur waaye jàpp naa ne samay taalibe ñooy saalibe sëriñ Touba ñooy saali taalibe maam El Hadj Malick si parce que tey maam Serigne Touba jëflante na maam El Hadj Abdoulaye Niass jëflante maam Khalifa loo xam ne du ñaaw ba yow mal xiyam maam El Hadj Malick si. jëflante naag maam El Hadj Abdoulaye Niass jëflante maam Khalifa lu rafet loo xam ne du ñaaw ba yowmal xiyaam kon nag mën naa gëm ne samay taalibe mooy taalibe maam ah, Serigne Touba samay taalibe mooy taalibe maam ah, Alaaji Malick Si samay taalibe mooy taalibe maam Alaaji Abdoulaye Niass samay taalibe mooy taalibe maam Khalifa Niass bu mën a maam Alaaji Abdoulaye Niass wax maam Khalifa wax naa Baye Niass parce que Baye Niass wax naa leen samay wax ki ko gënoon a ko gënoon a gëm maam Khalifa amut ci doomu maam Alaaji Abdoulaye Niass ku gënoon a ni Baye si maam Khalifa amul si doomu maam Alaaji Abdoulaye Niass moo tax gis ngeen secret bi ko maam Khalifa defal ma awaa maam Khalifa ci dundam dafa am lu mu doon santaane lu santane santaane rek bàyyi ñis na ko maa koy def lu mu santaane bàyyi na maa koy def awaa benn bis mu sant ko benn mbir bàyyi ñis na ko dinaa ko def mu ne ko boo ko defee yow Baye boo ko defee booba Baye Niass daawuñ ko tudde wooyee Baye Niass Ibra Assa lañ ko daan wooyee moo tax dinaa leen indil lu indi turu Baye maam xalifa ne ko boo ko defee yow Ibra ma ma sol la sekkara baay ma def la ngay baayu ñëpp keroog ba bàyyi gis demee defar liggéey mbir mi ba mu sotti ñëw wax ko maam xalifa maam xalifa ne ko bis ngi ko tey def naa la ngay baayu ñëpp japon yi indo yi chinois yi américains yi français yi espagnol yi ñëpp bàyyi la ñuy wax loolu mooy wolof njaay ne ku nangu nanguloo loo moomut ku nangulak nanguloo nangu moomut kon yeen taalib yi na ngeen nangu na ngeen ànd ak hadab yar na ngeen andak ak teggiin na ngeen ànd ak njub na ngeen ànd ak jaamu yalla fu ngeen toll de len wax lu bax de leen jëf-jëf ju bax bu len kenn xasloo ben serign ma ngi leen koy ñaan yéen taaliba yeb lay wax bu len kenn xasloo ben serign serign bu ngeen xas rek yalla ngeen xas wala yonent bi ngeen xas wala cheikhou diane ngeen xas te ñet ñi ku len xas safara nga jëm Seexu Tijaan yàlla daf ko may loo xam ne mu doon yonent bi si lépp waaye loolu maam Serigne Touba daf ko ko nanguloon ba ba génn ay xasida tagg Seexu Tijaan Serif ah waaye tey bu keneen jógee fële di woo waxu dof yooyu ay xooma gànna mesara xooma bu ko moo soon sax dugal dugal ko si débat bi waaye nag nit bu juumee taxaw na juum na ah yàlla boo ko tooñee sax da koy jéggalu mu jéggal la ah waaye nañ moytu gi nga téye sa micro taalibe yu wër la li la jox ay sagaru ñaar téeméer ay téeméer tax na nga wax lu ëpp billahi boo dee yàlla dana la mbugal te buñ sañoon li ma leen waxoon sànq la yàlla du mbugal kenn ñëpp lay dugal àjjana te ñun suñu kërti kërti guddi gi yëpp loolu rek moo tax ñuy kërti kërti kon nag vidéo bi gudd na waaye maa ngi sàkku si taalibe bu ko déglu na ko na ko na ku bëggal sa morom jàmm na ko yónnee sa moromu taalibe amul murit amul tiijaan amul laaybe maa ngi sàkku si vidéo si audio bii na ko ñëpp déglu te buñ ko dégloo maa ngi sàkku si yéen lépp lu si baax na ngeen ko jëfe waaye lépp lu si bon sama mbonte la ak sama nëngate ak sama matadi ngeen dind lu bon li jëfandikoo lu baax li nañu moytu xasante maa ngi sàkku si yéen bu ma kenn xas waaye bu kenn xas keneen lu si juum la sama matadi yàlla moo ma bind ci ñàkk mat si mat ak yàlla gi ngeen xool ma si ba xool lu mat li ngeen jëfee ko lu bon li ngeen sànni ko te suturaal ma parce que kenn ku ne bëgg nga ku la suturaal yàlla moo ñu njëkk suturaal njëkk ñee teral na wala xadd karab naa ba ni aadama waaye yàlla bu teralee ab jaam waaye jaam bi na fexee teral moroomu jaamam waaye xasante bi sama sëriñ mooy nangam te yow billaahi li sa sëriñ digle yëpp defoo ko yaa dàq sàcc yaa dàq fen yaa dàq dimbaloo say mbokk dem dimbala mbokk jàmbur lool sàmba alaar la yéen yéen ak yéen sëriñ si yëpp laay waxal maa ngi ziyaare sëriñ si yëpp maa ngi ziyaare waa Touba maa ngi ziyaare waa Tiwaawoon maa ngi ziyaare wa Layen maa ngi ziyaare waa Njaasaan maa ngi ziyaare waa Cheikh Omar Fouti maa ngi ziyaare waa Sokone maa ngi ziyaare waa waa Abbas Sall ñu baax a ngi noonu jaamukati yàllaa ngi noonu ñu sell ngi nii mooy kër yi ma leen limal ñu juba ngi nii mooy kër yi ma leen limal waaye fexe leen yéen ñu jokk ci kër yi muy kër maam El Hadj Abdoulaye Niass muy kër maam Khalifa Niass mooy maam El Hadj Abdoulaye Niass muy kër maam Serigne Touba muy kër maam El Hadj Malick Sy muy kër maam Cheikh Omar Foutiyou muy kër euh, waa ma waa Laayene muy waa Njaasaane muy waa Sokone muy waa Canaba yi muy waa sama mbokku. saaj membres yi di ziyaara bu baax xalifa ba fa toog di ko jaale sama xarit koo xam ne mënu wax si moom muy Cheikh Samba Diallo ku ma bëggoon ma bëgg ko aw ma occasion ba léegi jaale leen bu ma koy wax sax sama xol dafay tooy ah muy jàmbaaru fàkk tëdd boo xam ne liggéey na yonent bi ba yàlla yóbbu ko ci weeru koor wi di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram taawam ba mu bàyyi muy Cheikh Ibrahim ak doomam Cheikh Abba sama xarit maa ngi leen di jaale seen baay awaa ñu nangul ma sama ngànt ah, ngeen jéggal ma bu baax kooku bu ma ko tuddee la fokk tey sama sama sama sama sama ronkañ xaw wadd parce que maa ngi moom dafa am lien buñ buñ buñ bu ñu laalante woon di sàkku ak ci ay doomam ñu nangul ma samay ngant li ma fa ñëwagul ba léegi waawaa dinaa fa ñëw weeri koor daf fekk genn wàllu parce que genn wàllu koor gi yëpp dama ko dugg xalwa ah di di ko jaale Sénégal gi yëpp waaye di sàkku si taalibe yi ma lim yëpp sëriñ si ma lim seen taalibe ngir yàlla fi seen sëriñ tëggoon seen tànk na ngeen fa dëgg seen tànk mooy jaamu yàlla jëf lu baax moytu lu bon tey lekk lu lew moytoo lekk lu lewut waaw ah, gaaralu ma kenn waaye nañu moytu parparloo ci këru diine yi nañu moytu parparloo ci këru diine yi nañu moytu par ci këru diine yi ñun ñëpp yonent bi la ñuy liggéeyal ki gëm ki gëm Seexu Tijaan na gëm Seexu jaan li Seexu Tijaan digle ci tarixa bi nga di ko def ku gëm sëriñ Touba gëmal sëriñ Touba lim digle ci yoonam wi nga di ko def waaye yàlla nag moo bind te yemalewut kenn ku nekk ak maxama bi la yàlla may léegi nag yow boo gisee sa maqaama ba dof na yow kenn kese la yàlla may ah da ngaa lu yàlla may yonent bi gisoo lu yàlla may yonent bi ñaata yonent ñoo fi jaar waaye li yàlla may yonent bi mayut ko kenn te ñu ñëpp ay ummatu muhammad lañ ñu ñëpp xeetu yonent bi lañ loolu nag lañ war a ndamoo liñ war a ndamoo mooy li yàlla defal suñu yonent bi defalu ko keneen beneen yonentu waaye ne fii sama sëriñ nangam sama sëriñ nangam te yow sa sëriñ boobu ab jaam kese la jaamab yàlla la jaamab yàlla la di ndawul yonent bi nañ bàyyi yëfi caaxaan yi tey nag xam naa da ngeen ma jéggal ci kàddu gi ni ma ko yëkkatee parce que dafa am lu ma métti lool si léegi nii këri diine yi di doxee di parparloo ci télé yi xam na gëmuñ kenn gis nga plateau yi billaay gëmuñ kenn seen produit la ñuy jaay serigne ci foog ñu yewu xam loolu taalibe yi foog ngeen yewu xam loolu seen télé yi lañuy lancer pour nit ñi gën ko seetaan ñi xam na léegi këru diine yi pouvoir am na fa ñu ne nañ leen féewale waaye tey bu ñu invité Ahmed Khalifa Niass man dama jàppoon ne dañuy jël borom yi xam-xam teg leen ci plateau bi ñu waxtaan ak ñoon waaye kuñ kuñ teg ci plateau bi ndoy Bane ndoy Bane dafa mësa wax qaala Allah wala qaala Rasul Aba moom bañ na ba day reetaan loolu nit ñi moom mën nañ ko yóbbu ci wa eh, famille Noayman ah bandour Ndour ta wax ben mom ñoon ku ci wax ku ci yëkëti kaddu sax da ngay wër sa bop ñun xamuñ ci diina ji dara wa yow nga na ab jullit nga ta yow sa diina jango ci tous ko ñoon ñep ku ci yëkëti sa kaddu rek wër nga sa bop ku ci yëkëti sa kaddu nga ne man ci diina ji xawma ci dara wa xamo ci diina ci dara ba paré bëgg toog nitu diine nañ xolaan mbir mi kan pap Cheikh Diallo ko xam ne ay palaatu ay jigéen lay wërale ah ay fecckat waaye tamit attends nañ xoolaat mbir mi nañ xoolaat mbir mi nit ki nag danga nga woyofal sa bopp bañ njab la waaye maa ngi leen di dénk ku ci moytuut Ahmed Khalifa Niass da nga yàqu dafa am maqaama yoo xam ne nag nit ki da koy yenu nit ñi duñ ko xam gis nga maqaama maam Khalifa dafa dafa répondre ci doomu maam Khalifa yépp ku fi toog rek duñ ko xam dañ ko doyee di ba mu dem nag ñuy soog hey bu ma yëgoon hey bu ma yëgoon fekk bu ma yëgoon dem na bu yàgg moo tax maa ngi leen di def attention na ngeen moytu Ahmed Khalifa bu baax maa ngi leen ko doon wax si Sidi Lamine tey ñu bëri réccu nañ ko ba mu demee lañ ko soog a xam Ahmed Khalifa tamit noonu lay demee yàlla na yéex waaye fekk demul duñ xam kan mooy moom doomi maam Khalifa yëpp noonu lañ ku si dem lañ lañ lay soog a xam xool El Hadj Ibrahim alaaji ibrahima nga xam ne moo doon maam xalifa si lépp keroog ba mu demee ñu bari ñu ngi koy soog a xam maxaama yi ko yàlla ràngoon muy maxaama xutbaaniyatul usna maxaama boobu ñu bari ñu ngi leen koy jiiñ amuñu ko maxaama boobu maam alaaji abdoulaye ñes tey naa leen naa leen leeral lu bari parce que leeral dafa jot waaw leeral dafa jot te dinaa génn fan yi bu occasion amee dina dinaa dinaa leeralaat lu bari si diggante ñeseen ak tiwaawoon diggante ñeseen ak Touba te bu ma waxee kanaa ku jàngut mooy weddi waaye ku jàng da nga xam ne lii ma wax mooy li am parce que par parloo gi nag mi ngi bëgg bari te nag kenn ku ci nekk war ngaa xam ban tànk nga taxawee maam El Hadj Abdoulaye dafa am benn maqaama bu ko yàlla dénkoon muy maqaama xutbaaniyatul usna maam El Hadj Abdoulaye Niass maqaama boobu toog na ci at yoo xam ne kenn mënu ko lim te maqaama boobu moo gën a jafe toog. am na ñoo xam ne buñ ci toogee génn wàllu seconde yàlla nangu ko maqaam boobu yàlla du la jéggal dara njuumte boo def rek yàlla nangu maxaama bi mooy maqaame bi gën a foor maam El Hadj Abdoulaye Niass toog na si ba keroog muy génn àddina yàlla nangu ko keroog ba muy génn àddina maam Khalifa dafa dafa avant maam El Hadj di génn àddina maam Khalifa dafa donn maqaama maqa maqaama xutbaaniyatul usna ñaari maqaama yi maam El Hadj Abdoulaye Niass ak maam Khalifa dañ ci toogoon. mu ñu ànd muy maqaam xutba xutbaaniyatul usna ak xalifa seexu tijaan maam xalifa ba mu ko doon nee dafa liggéeyal yàlla nag yëf yi du ne saa bàyyee ko moomoon nag ma doon ko comme ni ñu donnee xilaafa yi déedéet maqaam boo xam maqaam boobu boo amul cër si yàlla dëgg-dëgg cër doo ko yor maam Alaaji Abdoulaye Niass ba mu fi jógee maam xalifa maqaamu boobu daf kaa ràngoo woon muy maqaamu xutbaaniyatul usna ak maqama khalifa Seexu Tijaan ci kaw souf maqama bobu kerek ba mam khalifa jógee jamono alaaji abibou sàll bu dimis mom mo don maqama bi xam nga bu ñu neexoon duñ ko wax mais alaaji abibou sàll bu dimis moy mam khalifa mam khalifa moy mooy abibou sàll bu dimis xa abibou sàll bu dimis bobu tok na ci maqama xutbaan mom moom fanweeri at moom toog na ci fanweeri at soo génn àddina maqaama xutbaaniyatu boobu keroog ba ko alaaji abibu sàll bu dimisxa génnee jamono ñu jël ko nag dénk ko alaaji ibrahima ñees doomi maam xalifa moom mu toog téye ko ba kereeg muy génn àddina du ma ko fenal tey nag dinaa wax lu ma musul wax ci rajo sama papa ba mu waree génn àddina bisab àjjuma man moom yàlla si kaw biir néeg mu am lum ma dénk ba ma ko dénkee ba pare li mu ma wax dafa na ma tuñam gélem la dafay lang te du wadd lan ma mujjalee wax ji nag mu ne ma lu ñu def noonu ma ne ko dañuy xadaratu jumaa booba waxtu tàkkusaan la woon ñuy xadara mu ne ma ah, yéen a ngi soog a ma ne ko ah, mu ne ma ñun de xadara nañ ci pays yàlla yi bu yàgg ba pare mu ne ma gis nga maqaama xutbaan yetul usna ma ne ko ah, mu ne ma maa moom ba sans biir bàmmeel keroog la soog a weer boppam Alaaji Ibrahima mu si toog yëpp kenn xamutoon na moo toog si maqaama xutbaan yetul waaye te ñu bari ñi ngi toog di woote naan maa toog si maqaama xutbaaniyatu maqaama xutbaaniyatu ku si toog doo ko wane boo keroog boo ko waxee keroog nga génn àddina xoolal El Hadj Ibrahima Niass ñaata at mi ngi toog ci maqaama xutbaaniyatu doom xamut jege ñaala xamut taalibe xamut soppe xamut xoolal maqaama Seexu Tijaan xalifa Seexu Tijaan bi mu toogoon ndeysaan man ci biir dund Baalaji Omar. sax mas na ma mas naa ko laaj parce que dëgg moom jëruñu koy nëbbu mas naa ko laaj na ko ah euh, daf ma junjoon ci affaire maxaama bi maxaama xutbaan yetu yi si si si dundam si jamono bi mu ko ràngoo ma laaj ko ah waa baaj moom kanaa toogu si mun ah, xëy na ak mageem loolu nag dama leen a junj rek waaye tax xoolal doomi maam xalifa yi ni leen yàlla rangale ak ma kenn ku si nekk ak maxaama bi la yàlla ràng noonu la ko defee si kër diine yëpp maa ngi leen ñaan nag audio bi gudd na waaye tey foog ma guddal pour ngeen déglu ko dama bëgg na ku ci jot na ko déglu ak déglu bu wóor te lii ma si wax lu si baax ngeen jëfee ko lu si bon ngeen sànni ko maa ngi leen di ñaanal yéen ummatu Muhammad bi yépp yàlla yàlla defal leen jàmm kàmb giñ leen gasal noonu islaam yi yàlla bu leen fa dugg waaye tali biñ leen fànqal tali biñ leen traceel moo yoonu yàlla yàlla ngeen fa jaar maa ngi ñaanal ummatu Muhammad bi yal na yàlla sotti si réew mi jàmm sotti si réew mi xéewal sotti si réew mi teraanga jàngoro ji yal na ko fi yàlla jëlee si ni mu gën a gaawee si barkeb Seydi ti Tidiane Serif radiyallahu anhu yal na yàlla raaj wàcce si réew mi jàmm wàcce fi xéewal wàcce fi jub wàcce fi juboo dàq fi musiba dàq fi wéradi dàq fi mooy yàlla dàq fi wax ju bon indi fa lu baax kese si barke Cheikh Tidiane maa ngi la ñeen ñaanal koor gii ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim bañ toll ci canne yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp luñ ci woor yàlla nañu ko yàlla nangul fay ñu ko te fëlandeel ñu ko lépp luñ ci def luñ juumte lu suñu naqat yàlla yàlla nañu ko yàlla jéggal yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg taaliba cheikh waaye yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg ab jullit yàlla nañu yàlla defal xaatamatul usna defal ñu xayaatan tayyibatan maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di seedelee na maa ngi fasanteeg yéen kóllëre ngir yàlla ak jëmmi yonent bi mboolem koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna leen koy tëjee daal samay taalibe mooy taalibe maam xalifa mooy taalibe maam alaaji mooy taalibe euh, Baay Ñas mooy taalibe Serigne Touba mooy taalibe maam alaaji Malick mooy taalibe damet damet yéen ñëpp samay taalib ngeen kon nag sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp jàmm ak xeewal ak naataanga li ma leen ni mujj wax laa taxaf wala taxzan inna laa maana wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.